dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa général Mamadou Mansour Seck la mu xam le nee na ñàkku kaaraange gi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal kilifa yi war nañu say jóg askan bi kenn ku nekk dugal ji sa loxo am réew munul développé te amul karaange gu mat sëkk yéenekaay gi di réew mi quotidien ak laas moom général Mamadou Mansour Seck mu wax ne Sénégal maanaam noonam bu njëkk mooy ñàkk yar ndax bëri na ci askan bi ñoo xam ne amuñu ay teggin lu jëm nag ci ñàkku kaaraange gi dañoo na nag wut ab numéro vert boo xamante ni askan wi képp koo xam ne njort nañ ne kii daal ay mbiram leerul ñu daal di woote man ko daal di signaler yéen a kaay gii di Vox mu ñu xamal la ñu ñàkk kaaraange gi jamono ji dafa lëmbaaje réew mi ci buntu pale présidentiel rek am na benn tubaab boo xam ne ci digg gug ndara kam ci lañ ko daal di agressé jël ab saagam yóbbu yéen a kaay gii di libération daal di xëy nag ci wàllum njàng meeg njàngale mi ak négociation yi nga xam ne doon nañu ko amal ak waa G7 waaye nag négociation yooyee dafa mujj nag tàbbi géej tax ak déggoo mujj sa am ñoom sax nee nañu nag seenu xeex dañu koy wéyali yéen kaay gii de laas mu ñu xamal nañu nag ñi nga xam ne nag ñooy ay élèves di teg fitna yenn si ay jàngalekat loole nag daat nay métti lool jàngalekat yi ba tey ji nag journée morte maanaam duñu daal di jàngale ji ba pare nag wéy di ko naqarlu di sàkku élèves yi nga xam ne ñoo dóor seeni jàngalekat ñu daal leen di dàq yéen kaay gii di réew mi di quotidien ñu xëy fekk fa aji mbergaan kanute moom nag daat nay wax ci lu jëm ci mbirum guerre gi nga xam ne jamono ji ma ngi jaabaajonge ci réew mi bi la wax ko barki démboo Ndiaye la mu xamle nee na njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag amul kenn koo xam ne dina la daal di làq-làqal maanaam ñiy def ay tojaange ak i giraawaali ak foo man di bokk daal dina sa jël ay matukaayam moom aji mbergaan kanute ba tey ci yéen kaay gii di réew mi ko dëjee daat nay wax ci Macky 2012 ak nag taxawaay bi nga xamante ni ñoom moom lañ sa daal di bëgg a taxawee maanaam daal kay koy jubbanti waata ba tey ci biir journal bii di Vox Populi ak laas mu xëy yóbbu ñu diiwaanu mu ñu xamal ñu démb nag askan ba ba maar Dakar day tali génnoon si mbedd mi doon amal ay manifestation ñoom nag la waral mooy dañoo wax ne Adama baro moom nag bi mu jotee ci réew mi dafa waxoon ne ñetti at rek lay def ñoom nag dañu koy fàttali ne ñetti at ya mat na du ñu ko bàyyi benn yoon muy daal di continuer yéen a kaay gii di libération mu ñu xamal lan ñu am na ñuy wax ne am na ñett nit ñoo xamante ni ñàkk nañ si seen kana am ñaari rajo yoo xam ne dañu ko saa daal di tëj journal bi ne wax ji kay mooy Adama Barrow ci boppam moo wax maa waxoon waxeeta waaye démb Gàmbi tàng na jër bëri na nag ay nit ñoo xam ne nañu sa ay gaañu gaañu Guy Marius Sagna ay nag ñuy xamle ne daal déposé war nañ ñu fekk ko ci biir journal bi la mu xamle nee na collectif ñoo lànk ñoo bañ di xeex lu jëm ci wàllum yokk courant gi ñoo ñee ay xale yu taxawaalu di lambar lambari rekk kese lañ ñoo xam ne jëmuñu fenn waaye nag moom jiitul COJER la mu xamle defar nañu ay flyers yoo xam ne dañu saa def li nga xam ne mooy bilan président Macky Sall te nag ñoom daal duñu nangu kenn nag di occuper terrain bi ñoom daal ñuy wax ne jàpp gi nga xamante ni jàpp nañ ko Guy Marius Sagna maanaam lu ci xel nangu la Seydou Gueye moom tim ci journal bi di xamal Guy Marius Sagna na ko pale dem fa nag ku ko def bu ñu la jàppee yaaka teg sa bopp yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal na ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag mbirum koom daanaka yitteel loola ba sax démb ci ngoon la daal di jóge ci Ndakaaru dem nag ca Allemagne ngir fekkee tey ji ab forum boo xam ne jëm na ci wàllum économie moom njiitu turéew mi ànd nag ak ñenn ci gouvernement bi réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall nag daan nay ànd ak xaritam bii nga xam ne mooy président Mbagnick Diop ci avion présidentiel la waaye rek ak ki nga xam ne mooy Beydi Agne bu CNP ak Mansour Kama président bu MEDES fas yéene nag daje fa nag ak ay personnalité yu bare bari ba tey ci biir yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu waa CEDEAO ñoom nag daat nañuy wax ne ñetteelu mandat daal du fi daal di am ñoom nag kàddu yooyu dafa mel ni Alpha ak Macky Sall ak Alassane Dramane Ouattara moo ko tax a jóg nag ci biir yéen geneen goo xam ne daan nay xëy wax ne waa CEDEAO daan na ñuy yi lu ni mela laas yéen a kaay mu dikkal ñu si liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekkoon ci SDE ñoom nag jamono ji ñoo ngi sonn ba maara day taale ndax seen i compte dañu ko daal di bloqué ba pare seeni i prime ak seen i indemnité kenn fayu leen ko journalub groupe promo consulting bi xëy di samp ab laaj di wax ne Moustapha Diakhaté ginnaaw bi ñu ko dàqee ana kan moo siy topp Seydou Gueye moom nag la mu xamle nee na Moustapha Diakhaté daal moom moo bëggoon ñu dàq ko ci parti bi te dafa mel ni sax dafa jugoon ngir nag yàq parti bii di APR en tout cas li am ba de journal bi nee na bëri na ñoo xam ne dañoo frustré ci biir parti bii di APR Moussa Sow bu Kogère la mu lee nee na Moustapha Diakhaté ci boppam bu ñu waxantee dëgg la tax nag muy ŋàññi Macky Sall ak doxalinam la nga xam ne moom lañ ko joxoon moom la ñu nangu te nag mbir mi warul doxee noonu yéen a kaay gii di sunu làmb xëy di ñu xamal na ñu ñi nga xam ne jàppoon nañ ne combat Modou Lo Ama Baldé du am nañu dalal seen xel ndax bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar 4 février ñeenti ci weeru février la ñuy amal seen njëkk